On est dans une administration arbitraire, dans une administration maintenant personnalisée, euh, on est dans une monarchie euh, qui ne répond plus, en tout cas, aux lois, qui ne répond plus aux règlements, qui, fait, ce qu'ils veulent. Donc ils se croient tout permis. Et cela, nous allons, en tout cas, le combattre avec toutes nos forces pour que force reste à la loi et que les décisions de justice soient exécutées comme l'avait promis le président de la République. Et on au candidat Ousmane Sonko, il refuse de l'exécuter. Nous allons revenir autant de fois pour faire exécuter ces décisions et récupérer ces fils. Ils n'ont donné aucune raison, c'est complètement arbitraire. Vous étiez à côté de nous, ils nous ont dit, euh, la DGE a dit que, le directeur général des élections dit qu'aujourd'hui, ils ne reçoivent personne. C'est Alors... les mots qu'ils nous ont annoncés. il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison valable, c'est de l'arbitraire, c'est euh, le fait du prince. Et le délai pour récupérer les fiches n'est pas écoulé. Le délai pour récupérer les fiches n'est pas écoulé. Le délai pour récupérer... Non, non, on n'est pas dans ce cas de fourcusion, mais il y a une violation caractérisée et grave de nos droits d'électeurs euh, et de droits de Ousmane Sonko en tant que candidat. Donc c'est extrêmement grave et ce n'est pas une question de délai, c'est une question d'exécution d'une décision de justice, c'est une question de séparation des pouvoirs, c'est une question de démocratie, c'est une question d'état de droit. On est dans une république, on n'est pas dans une monarchie, on n'est pas dans une satrapie, on n'est pas dans une république bananière. Donc il faudrait que force reste à la loi et que les décisions de justice soient exécutées immédiatement. Il a pas de euh, euh, Bien sûr qu'il y a un de dépôt des candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Si on vous remet pas de fiche de parrainage jusqu'au dépôt du, euh, euh de candidature au niveau du Conseil constitutionnel, vous serez fort quoi, c'est sûr. Donc, euh, il n'y a pas de aucune raison, mais qu'ils nous donnent les raisons, qu'ils osent nous affronter au moins face à face en nous disant euh, en qu'on vous remet pas les fiches pour tel motif. Mais ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de motif. Ils reçoivent comme des robots. C'est ça qui waaw tey dañu ñu direction générale des élections daf ñoo bett euh, daf ñoo jaaxal euh, muy euh, loo xam ne lu doy waar parce que tey dañ ñëw présenté wu pour retirer fiche de collecte de parrainage donc nga xam ne le candidat Ousmane Sonko moom nañ ko war a jox te ñëpp gisoon nañu le 29 septembre ces fiches de collecte de parrainage dañu ñu ko bañaloon ci motif boo xam ne teguñu ko fenn jaay ñu doole ne duñu jox fiche de collecte de parrainage donc ñun quand ñu rester républicain ñu rester démocrate ñu jël lu ñu yoon may dem dafi ay recours ba ñu am ci ndam tribunal d'instance de Ziguinchor dëggal ñun lu ñu doon wax ni ñoom amuñu benn droit tere ñu jox fiche de collecte de parrainage tribunal d'instance de Ziguinchor moo annuler radiation Ousmane Sonko sur les listes électorales tribunal d'instance de Ziguinchor moo joxe ordre ne administration yëpp nga xam ne ñoo bokk ci ministère de l'intérieur la ñu fexe delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi lu ma gën a gaawee loolu suñ ko defee ba pare jox ko ay fiche de collecte de parrainage am ñu am une décision de justice. ñëwee lan la bu ma ñëwee présenté wu ñu ne ma doo dugg. ñu tere ma dugg ci bi ci portail bi nañ ma téye ne ma doo dugg ma laaj la du tax du ma dugg ñu ne ma dañ may annoncé ma ne a ah ma toog taxaw xaar taxaw xaar quelques minutes ma ne ko mais euh, danga ma da ma ne da nga di ma annoncé euh, maa ngi xaar ba nu mu demee nii ñu ne non non di euh, chef bële moo ngi lay annoncé am ku ñëw laaj ma ma présenté wu mu woo ay supérieur am ñu wax mu ne ko kookan la ma jox ko sama carte député wu présenté wu ma àndoon ak huissier huissier génnee carte wan ko ne ko moom itam dafa ñëw pour notifier signifier décision bi à la direction générale des élections ñu ne d'accord maa ngi ñëw mu dem ñëwaat ne directeur général des élections nee na ko tey DGE du recevoir kenn la DGE ne reçoit personne aujourd'hui ma ne ko est-ce que lu nga wax nii est-ce que am na est-ce que yaa ngi dégg bu baax lu ngay wax est-ce que am na kii di service public la amu leen déjà droit tere ma ma dugg amu leen déjà droit man tant que député même su ma nekk woon député sax nekk simple citoyen dama war a dugg dem au niveau du service est-ce que service boobu ñoom amuñu euh, maanaam fit wala amuñu sañ-sañ mais bien sûr damay présenté wu lu tax du ma présenté wu <laughs> mais on est des citoyens comme tout le monde voilà donc euh, est-ce que ñoom amuñu motif déggoo lu mu la wax nee nañ tey DGE du recevoir kenn mais déggoo lu mu la wax nee naa la amuñu motif ko amul motif kay leen dem laaj dem amuñu motif lu ñu fas yéene def mooy xeex pour exécuter décision de justice bi parce que lu ñuy def nii jaay doole la teguñu ko fenn ñëpp gis nañu dañu doon ne force reste à la loi te Macky Sall moo toog jour boobu muy annoncé ni du du nekk ci du dafa di troisième candidature mais je personnellement à l'exécution des de justice décision de justice buñ ci jël moom na ci taxaw temm pour ñu appliqué ko mais gis nañ tey décision de justice bi bañ nañ ko appliqué te loolu moo ci gën a garaaw du ñun suñu du man en tant que mandataire du Ousmane Sonko en tant que candidat mais lu garaaw mooy tey citoyen yëpp a nekk en danger puisque yow soo demee état de droit nga ñëw indi décision de justice bi ñoom duñ ko appliqué en tant que administration day doy waar donc ça veut dire état de droit jeex na Sénégal démocratie jeex na Sénégal ñoo ngi dugg nag si loo xam ne dictature la te loolu tamit duñ ko nangu dañ koy xeex ba jëlee ko fi parce que lu ñuy def ni jaay doole rek teguñu ko fenn donc suñu fiche de collecte de parrainage incha allah nañ ko jël si mu neex leen mu naqari leen loolu daal nañu mën a ma ne nañ ñëwaat autant de fois que en tout cas possible pour jël fiche de collecte de parrainage ci Euh, jamono ji déjà suñu candidat ay droit am violé nañ ko parce que ñëpp récupéré nañu fiche de parrainage Ousmane Sonko rek jamono ji moo récupéré wul ay fiche de collecte de parrainage te lu recours yu ma waroon def yëpp def na ko ñoom nag dafa mel ni dañuy jéem a gagner du temps ils jouent avec le temps waaw te loolu nag duñ leen ko seetaan nañ fi ñëw taxaw autant de fois pour récupérer fiche de collecte de parrainage yooyu parce que loolu obligation la waaw lépp lu ñu yoon ma lépp lu ñu yoon may daal nañ ko def pour récupérer suñu fiche de collecte de parrainage loolu nañu wax exécuter décision de justice bi lii moom kenn du ko seetaan kenn du ko xool muy wéy di continuer voilà vous allez bien sûr on est capable de revenir à tout moment même s'il faut passer la nuit on passera à la nuit pour récupérer nos fiches de collecte de parrainage parce que c'est un droit merci